<laughs> Good. I like the cake. Mm-hmm. Thank you. non ñu xamante. maanaam yow. deux mille deux mille quatorze. deux mille quatorze ak léegi dina def. Euh, euh, huit ans. sept ans huit ans. Mm-hmm. sept ans huit ans. fekk maa ngi dem di. 2014 fekk New Jersey. New Jersey. Euh, New York. Uh-huh, New York New Jersey. def va et vient. huit ans. Mm-hmm. huit ans huit ans bëri na de. bëri na de. ñu xamul xamuñu nag. waaw dëgg la. ñu xamul xamuñu de. dama yàgg ànd bu yàgg dëgg la. huit ans. <laughs> foog naa euh, ñu ngi def. Euh, non 2014 ak léegi. 2014 6 ans 7. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 5 6 7 8 8 ans la. non mu nekk 8 ans parce que après 2014 15 16 17 18 19 20 21 waaw 7 ans 7 ans 2013 soo ko la de fin 2013 waaw. waaw fin 2013 waaw côté noonu la. waaw côté noonu la. amigo you ready. ready. You ready for the uh, for the count? I'm ready for the count. For the cake? No, yes. no, the cake is good. I think it's um, I think it's a good cake. Um, I'm a, yeah. Uh, yeah, yeah. Let's go. Let's go. Yeah. Mm-hmm. Let's go. All right. Put it next to the cake right here. Yeah, yeah, it's good. Yeah. Let's go. Mm. Mm-hmm. Money. Yeah, it's good. We're ready. Let's go. Yeah, it was good. waaye nag gaaw bokk foog ñu dem ñu buub lépp mu dem. Ah, waaye lii lu ndaw la. non buubal buubal lépp ñu dem rek. parce que lii lu ndaw la. buubal lépp ñu dem rek. kot la kot la. my friend. du yomb rek. Yeah, it's good. It's good. Huh? For, for the no, no, it's good. It's good. It's good. It's good. It's good. We gotta go right now. I'm gonna go. Thank you. See you tomorrow. tomorrow. All right, tomorrow. All right. Uh, uh, you okay. can throw in the garbage. Okay. Throw the cigar in the garbage. Okay. Are ah, you done? ñu dem let's nañ dem. seytaane xaju si <laughs> mais du ñu am place pour dugal ci lii xoolal tëmbal ko ci maal bi rek dem quoi ko ci maal bi quoi. commande bi ngi si yow de ah. Uh, non baara yaa ngi cool. tëmbal ko ci maal bi rek après ñu dem quoi mool la mool la rafet na. Yeah, dañ dem yeah that's it yeah